asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Leewtoo TV waaw Leewtoo la ak koor gi tey tamit ñu seet si keneen rek koo xam ne daal gis ngeen fi ma taxaw nii Babacar la ak Talla Ndiaye ci escalier a taxaw am na nag mbër mu ñuy seet bi mu bëree yàggul am ndam lu rëy moo tax tey ñu bëgg koo xool ba xam moom naka lay ndogo waaye ñu ngi ci ànd ak suñu sponsor bu ñaawul bi Ecotra mi da aay ci tabax bâtiment Ecotra mi aay ci tabax yi ay taleeg yu mel ni ki noonu ak defarum kon ak yooyu ku ko weddi demal jam ñaajo moo ñu gunge nag ci lii ñuy def tey kon taala njaay kenn du Ecotra nañ dem ci biir. Ah, Ababacar. Talla Ndiaye sa waaye ngi nii de ond ngi nii de. Babacar siyaar nañ. ond bëgg naa waaye fii la waree bàyyi. fii ñu la fekk mooy fan. waa fii sama kër yaay la. sa ban yaay. waaw sama yaay Ndeye Marie Géwél doo dégg ma naan sama yaay moom day bañ sax léegi ñuy wax Ndeye Marie Géwél mais Ndeye mari bu sëñ Fallou. tey daal fii nga fas yéenee làng ndogu li. Talla ond dalal na ma sama maa ngi lay bëgg waa Pikine waa ginnaaw raay nga loolu ngay xëcc di ko wane banaana ay poma eh, donc daa jotam. ah kenn waxatu ko. kon bisimilah boobu. tibbal bu baax. tibb naa trois kay te ñett yi defe naa baax. nee naa la o ko defati. lan laa la waxoon esaat bitig buy lakk la. waaw lu neex waay mu ni. <laughs> moo newoon ci biir. <laughs> tey ci génnee noonu de. kon taala boutique ngi nii. ayca sëñ Fallou. bisimilah. tey joxagoo ma benn. Ah, xaar. ah yow kat yaa ma dalal. ah te yow yi béy. Alla Ndiaye dugg nañ ba ndogu nag dafa fekk ne ki nit ki nag soo ko fekkee ci këram. te comme Onde am na lu dox diggante ma kii moom la seet si soxna si maa ngi lay jaar sama doom la dañoo bokkoon dëkk ginnaaw raay mu gis ma bëgg ma lool ma gis ko bëgg ko mu nekk sama doom ma yar ko sama kër boobu ba gis ma dara lu ma naqari si moom yàlla moo ma booleek moom daal ma def ko comme doom ju ma jur wax dëgg yàlla waaw. mettiwul mbër boo ko booy ànd ak moom danga koy jàppale rek danga koy jàppale bu baax Onde sama doom la lii rek moo ma kii ak moom. léegi ma dëkk ginnaaw raay moom mu dëkk ginnaaw raay man ma dëkk Zac Mbao mais nag toujours bu jot ñu ngi gisante ndax day ñëw si man su ma ko soxlaa dama koy woo aw ma dala lu may réccu sama diggante ak moom wax dëgg yàlla boo amoon loo koy yokkal tey ci li muy def loo koy dolli ci ay wax wala ay soññ lan lay doon mu yokk entraînement am loolu laa bëgg yokk entraînement bu baax a baax a baax loolu laa bëgg garab bi mu daanee loo yëg kontaan bu baax barke sëñ Fallou seetaanu ko sax sama doom yee ma woo téléphone rek na ma Onde moo daan ma kontaan keroog mbégte bi ma am musuma ko am si àdduna ndax dafa mel ne doom ju ma jur barke Seydina Mohamed. nag Talla Ndiaye dugg nañ si kër gi. Onde dalal nañu moo ki yaayam sunu yaay Adja Marie fay madame Gadio ah du noonu la demee. gis nga tamit teraanga yi taala gis nga ñoom it bagage ma la ko waxee rek fii moom non stress la li may wax rek. waa ñu ngi siyaar waat dolli màggal mhm. bégee ma ñëw sama waaw sama gars yi ma àndal yëpp ñoom Ibou Mbacke waaw Mour Samb ah Naaru Gétto waaw Pape Milincu waaw Omar Diouf Omzo Tilala ak sa gars yi nga àndal yëpp. Taala Ndiaye waaw Góoram Maane. waaw waa Modou waa Lit TV yëpp. ñu ngi leen <laughs> booy Omzo maa ngi bëggee ñëpp di bëggee waa Pikine yëpp di bëggee waa Ginnaaw Raay di ñaanal sama yaay fi mu tëdd. yàlla na suufu njar oyof yi kawam di ko wax waaw yàlla na ko yàlla yërëm ak bépp yaay bu nekk ci kaw suuf ak bépp koo xam ne nii jullit nga rek te di ci kaw suuf yàlla na la yàlla yërëm jégal la say bàkkaar ci barki weeru koor bi maa ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp daal ñi ci jàpp ñëpp maa ngi leen waaw nuyu nga ñëpp ziar nga ñëpp c'est normal weeru koor lañ ne waaye tamit di profito di ñaanal sama wajur bu jigéen man itam yàlla dafa def mu tëdd ci biir suuf ko ñaanal yàlla yërëm ko te jégal ko moom bépp julli bu tëdd ci suuf rek koor wi barke yonente bi sallallahu alayhi mais ond koor gi la ñu ne mbër mi ak koor gi parce que nag koor gee tax ñu ñëw fi tey mbër mi ak koor gi ond muy dundee koor waaw habitué nañ ko parce que ñun ni ñuy dundee koor mooy weer dañuy woor ba ngoon jot bu guddee ñu dem géej entraîner benn séance ñëw tëdd mais nag am na ci mbër yoo xam ne nii moom ku ci mel ni Zoro tëdd xëdd yeewu ndogu Zoro moom noonu la koy dundee instant yeewu ndogu Zoro moom waaw mais Marie bees la nag man nu mu dundee fi mu nii war na maa <laughs> wala <laughs> day dajale booy ci bopp koñ bi indi fa débat boo xam ne nii ba heure xëdd mu dem xëdd bu xëddee ba pare balaa mooy yeewaat ndogu la gars yi ko tëdd xëdd yeewu ndogu comme gars <laughs> boobu boobu doy na waar mais yow weeru koor bu buñ ci duggee ab jullit lan la war a jëf maanaam lan la war a yokk ci jëfam yu baax si biir weeru koor. waa jullit moom dafa baaxoo baax ko waa jullit dafa baaxoo baax parce que liñ la war mooy ponk lislaam yi juróomi ponk yi nit ku nekk nga nekk ci te loolu bu dul weeru koor sax danga nga kaa war a def xëy na loolu boo ko dee def dañ lay yokkal say say say kii mais terewul bu koor paasee tamit danga ka kaa war a continuer waaw loolu jullit moom. li mu baaxoo charte bi bi ko yàlla wàccee loolu la rek weeru koor baax jullit rek moom baax weeru koor ak ñàkk nekk weeru koor loo baax nag weeru koor dañ koy doubler mais bu weer bi paasee tamit warul tax nga bon bul bàyyeeku da ngaa war a continuer. Ondu jàng na alxuraan. waaw tuuti rek. foo yem loo ma mën a wax ci alxuraan yi nga jàng. am na lu ma fàtte lu bëri nag du ma fi wax di wax. nga fàttaliku kay laa bëgg di. fi dul wax di toj toj ñu may statek di ma def ay kii ban li ma jàng yee du ma ko léegi xam naa sam bopp. Uh-huh. stat yee tax quoi. mais ondu si koor bi ngay gën a nekk xale mas ngaa war waru gàlle wala. waaw daan naa ko def noonu laa jàngee koor. bi nga ko doon def ci ban façon nga ko doon def ak kula la jàppoon bi nga ko defee. waaw non c'est que bi ñu nekkee xale ñun bi may toll ni kii dama boo boo boo xëyee dañ naan la da ngaa woor mais dañ lay jox nga ndékki boo ndékkee dootoo lekkati ba midi une heure deux heures ñu jox la nga añ mais chaque jour dañuy def sa xel ni da ngaa woor mais kenn mësuma jàpp ci wooru gaale parce que ñun fi nga ko defee dafa sori quoi ñun dañ naan wax dañuy dàq koor dem ba ay géej wala ay yaraax lekk ba pare doog ñëwaat mais fekk na boobu ñu def ko ñu tàggat ko ci suñu bopp quoi ñun ñu xam ne ñun bu ñu màggee dañoo war a woor mais instant boobu noonu xam nañ ni ñun ay xale lañ mun nañ cee jaar mais après dinañ ci jóge kon daal banga xam xàmme ko nekk mag dëgër ba tey ma soo dagg koor daal ci lu la neex damay feebar sax di woor barki alxuraanu karim ay temps dama naan woor du ma julli gars yi di wax naan ma ay sa koor gi nii sa koor gi ne dangay xiifal ak man leen koor daal du mayonnaise koor moom nekkul lu ko laal mu doog koor du nees quoi ah, waaw. ah koor du may na ondu yow itam oh, mais am nay sart xanaa. ah mais yow yàlla da ngaa mën a xëy suba ba ngoon lekkoon naanoo bàyyi mu lay niinal xanaa. xalaatu ko. xanaa kay gaayen bu mayee gaay yi sax dina la may waaw soixante quinze la niinal nag. yàlla waaw ond lu dul ci doomu aadama yi waaw mais xanaa nag nit du ma xëy sama xëy sama xëy xiifal fajar xam nga boobu nag damaa damaa dofoon quoi damay woor wër na yàlla après du ma julli du ma def dara ndogu bi jotee ma dem ndogu bu ma xëyaatee nekkaat ci gars yi naan da ngay xiifal man leen xiifalu ma dem. ma ce que gars yi waxuñu dëgg. waaye gars yi dañoo xam liy dëgg yow fa yàlla di bind pointé kenn da kaa fekke yàlla ba muy pointé kenn daa xam lan la la yàlla pointé. kii kenn xamu ko. kenn daa xam lu la yàlla pointé. ah ku xamoon la yàlla pointé nga noppaleeku mais doo lekk sa banaana bi commencé. waaw ñu xàmpandoo. Ndiaye. <laughs> day maye énergie. <laughs> day maye énergie. xam naa fa la waxtaan way ñu jaaree ci terminé lamb kañ nga ci dugg. ay ay yaa ah, ay 2008 xaw ma. yaa ngi fàttaliku fan nga njëkk a bëri arène ban ban combat arène nga njëkk a bëri. mag euh, Malaw. Malaw waaw Malaw. Malaw Plateau la nekkoon digir Plateau. ok ku daanoon. moom moo ma daanoon. yow ñaata combat nga def ci arène. man is defuma bi nekkul sama quatorze combat xaw ñaata victoire ak ñaata défaite. am naa quatre défaite xaw ma cinq daal ak benn combat sans verdict. waaw kon daal ay neuf victoire ngay am côté yooyu su la déggee. waaw côté yooyu laay. combat ak Siteu ay jamono ñu woon taxaw na ñu dem ba dernier moment ñu ne ko ba taxawatul problème mu kase la ñu fay on fay Siteu loolu la on nanguut ragal Siteu la woon wala kase la woon. man bu ma demee bay ragal nit dee ah parce que ma yaroo dafa metti talib bees jugee talib bees ñëw dë ginnaaw raay man parcours yi ma jaar Cheikhou Chérif moom jaar foofu quoi. Cheikhou Chérif. Cheikhou Chérif alxarifa kan nga fi tudd. non man Siteu laa xam bu dëkk Lamsaar mais Cheikhou Chérif yi moom bu dul bi ñu fendi woon Sénégal ci jamonoy 2002 ya xaw ma 2001 xaw ma fi man kooku ko lan la lan la man kay xaw wax laaj naa la ko. lan la indi man xaw ma ko wax ma ko. Chérifu kay kaamil bi la ko ñi ñi xamee. waaw Siteu kan moo ban mbërë fi wax ma ko man xaw ma ko. naan Bécaye damay waat Bécaye Bécaye damay waat ba tey waatul de Bécaye naan ko booy bul fi waat mu naan Bécaye hmm. nee damay gens damay waat Bécaye ba tey waatul kooku laay wax. mooy Cheikh mais ñëwal ci li yàqoon seen combat da nga koo nee nga ragaloo kon kon kasa la woon. waa ñetti yoon la xaw ma ñeenti yoon parce que man maa doon e estaaram daf doon rêve gis ma moom nekkul daf bëggoon a bëre man quoi. kan moo doon c'est hmm. daa amoon ay rêve pour bëre man mais bi ñu demee ñetti promoteur bëgg ko mu yàqu. ma toog ci télé bi dégg Pape Abdou Fall jékki-jékki ni taxawal naa combat Onde ak Siteu ma laajte fan la Pape Abdou Fall taxawalee sama combat coow li commencé jolli ñu wax ma liñ ma fay man leen bëréew ma loolu looloo indi woon problème bi ñu wax ma liñ ma fay fekk xam naa moom li mu fayeeku ma ni bëréew ma loolu parce que Siteu kase moom

mbir yi bañ la fayoon baaxul woon ci. dara lu ma baaxul woon ci man bu baaxoon ci man kenn waxatu ko jël naa ko. waaw parce que boobu li ma bëree combat bi rek la woon tey dañ la doon jël pour figurant man du ma figurant acteur laa. man acteur laa du ma figurant dañ ma doon jël pour figurant jël ma pour nangam ak nangam bëri Siteu Siteu faxas la et cetera te man Siteu fi ba. est-ce que da ngaa xalaatoon est-ce que ko ne boo ñëwee mu daan la. Siteu dafa ma mën a daan Siteu man maa ko dàq bëre. foo teg lii it ond. ah tegal ay combat Isa maa ko dàq bëri maa ko gën a ñeme maa ko dàq xeex man damay daañ avec la manière. du loolu booy ma ne a ah, bi combat dama koy jël du ma tàggu kenn parce que bu ma tàggoowee du ma ko jël te booy samay booy rañ mais mun na am ñoom ñu comprendre ma quoi ma jël combat bi tamit ñoom ñu comprendre ma damay toog waa xam sa cosaan yëkkati xaalis bari jox ma vee combat bi ma toogaat yaakaar ni ci lay yem deux jours trois jours ñu indi indilaat ma xaalis bu ëpp liñ ma indiloon ba pare ak yéene entraînement yi. dañ lay woo jàpp ci entraînement yi lépp ma xam ni ñii kon bëgg nañ xam nga garaawul quoi mais li ma koy may tey mooy damaa war a daan booy bi mais pression moom. amat ba ma gasee sama yaay dugal ko ci biir bàmmeel barki alxuraanu karim la pression àdduna denc ci man. billahi wallahi taala man nit mënatul def loo xam ne nii lu may saf loo waa mënatul nekk. mu mel ni loolu métti na de. am na lu nekk ci man quoi man xam naa ko. moom bana erreur la def ba nga daan ko. deful erreur. lu mu def kon. Ada Fass dama ko mën duma ko daan ko. man du daan nga wax. dama ko mën du ma ko daan xaaruma ko muy def ay erreur de. combat bi ma ko jëlee ñëpp xamal lan lañ may wax. booy bi bu arbitre soufflé da ngay déplacé wu may ko temps bu ñëwee nga juumloo ko mais damay reetaan rek nii leen waaw ñetti yoon laa doon entraîné ci bis bi barki alxuraan damay xëy dem saal bala bu ma añee ba pare demaat diin bu ma ñëwee ngo di jóge di noonu laay jógewaatee waatee contact ba timis gee ma ñëwaat tëdd cinq heures du matin ma jugaat di ko def pendant un mois et quelque mais dama dama gis ne ci biir combat bi da ngeen daw daje mu bépp la nga mel ni lu ko wuyu si ma gis nga jàpp ci lu mel ni ci përëgu loxoom mais dafa mel ni foofu ay téeréem nga jàpp poñe ko ba dóor ko dóor yooyu nga ko dóor foofu. waaw foofu xam nga moom bi ma fàqatee li tax ma wuyu si ko dama doon dugal sama loxo pour wut fu ma jàpp pour duma ko. moo tax moom bi mu ma bi mu bi ma fàqatee ma koy topp di yoot rek ba jàpp ba jàpp man fi ma bëgg a jàpp ci sama loxo gauche ma jàpp fa bi ma fa jàppee ba mu fàqat ba mu taxaw ma taxaw nag parce que moom gis nga ma bi ma fàqatee raamu ma bougé wu ma def ma benn mètre ma koo topp rek ba mu def li muy def ba pare ma fàq ma ma ma commencé dóor. dafa kawate ci biir combat bi. waaw loolu loolu loolu loolu information. moom la ñuy seetaan combat xam nañ ko. mu dóor dóoraat. mu siggi mu dóoraat mu siggi ma fàqat ko mu wàcc bi ma ko fàqatee mënoon naa dëpp ci kawam bëre wala dara mais dama kaa may temps ba mu jóg bi muy jógaat ma kalaatewaat ko bi muy jógaat mënoon naa jéem a bëre wala dara mais dama ko bàyyi ba mu fàqat ba def deux appi xaw ma trois appi bay jóg ma déclenché waat xeex bi dóor ko mu mu mu kaawoo jël ñaari loxo yi sëpp ko ci suuf gi ma bàyyi ko daw wër ko nomba bi ma ko wëree ndomb xam moo tax ma bëri munoon naa faa nekk di ko dóor rek di def ay affaire mais bu boobaa dama koy dama koy duma rek du ma ko daan ma daw tafu ci wet gi puus ko pour mu tëdd moom mi ngi dugal tànk bi sax naan daf may mboot parce que xam naa ni mboot la mais damaa bàyyi tànk bi jëli loxo bi weñ ko bës ko mu tëdd léegi nga jëm fan Cheikhu Chérifu Cheikhu Chérifu al Khalifa waaw yow man moom seexu sa réew bu dee Siteu ngay wax Siteu moom xam naa ne fi ne nii boo ne da nga a bëri moom itam est-ce que du da sa bopp rek ak wax ne Siteu non mais est-ce que dépassé wu la man lan mooy problème bi yéen Siteu warul daanu ñun ñan yéeni guy wala yéeni Dakar ñun kay dañuy reporté donc nag ñun non c'est parce que man bu ma bëggee bëreeg Siteu yéen waroo leen maa nangam parce que Siteu moom mbër la comme mbëri mais man nangu naa bëreeg moom bu leen ko génnee làmb ji bàyyi leen mu bëreeg man est moom dina nangoo bëreeg yow ah xanaa daa bëgg a bàyyi bëri. déedéet mu ngi ci làmb moom mbër la bàyyi leen yi ngeen di def waay yooyu baaxul. waay ond yu def bu daanoo ngeen naan ay kii Siteu man mun naa bëri ak moom garaawul bàyyi leen ko bu leen bu leen ko. Siteu ñu doon wax diggante ak Ama Baldé bañ ne presque tax ay ñu ñu naan taxaw naag nangam nga. waaw yow gars yi doon comédie rek nga naan maanaam gars yi. Ama dafa dépassé. xel lañ leen di teg moom man nekkuma fi pour défendre Ama Baldé. waaw non déet da nga ne kat dañ doon comédie. déglu ma man Ama Baldé du ma géwélu juddoom xam nga dama kaa bëgg a raw jël pee xam nga waaw moom ay combat am na ko géré man Cheikhou Chérif comme nangu naa bëre ak moom moom na ñëw ma waaw ma bëre moom mais bàyyi leen di ko sous-estimé mbër la nag def na fi ay jaloore kii di ñu booleeg àddina da ñun kay sous-estimé dañ ne est-ce que dina la nangoo jël loolu la ñuy wax ñun mais ndax li ma def aada face moo tax xanaa wala xanaa mu war wala mu dépassé la xanaa kay <laughs> li nga wax gëmoo ko sax yow. man kay gëmuma ko. guuxal benn kuy wax li nga waxaatoon. <laughs> damay daan ni lan. <laughs> ma ne kuy bëri ay trente millions ba <laughs> ay taala jaay problème a ngi nii <laughs> mais lu la lu la boo waa Kër Fallaye Baldé damaa gis kër nga ànd ak Zil Baldé gintee cere ndawal. Zil Baldé moo ma débuté sam papa nit ku baax waaw bi sama yaay gaañoo mbër yëpp moom moo fa teg tànkam ak père Tafa Gueye mm. waaw te chaque jour tamit dama koy gis bu du bëgg a reetaan. waaw day bëgg di bu bu ñëwee même bu amee lu ko naqari sax mais bu ma ñëwee rek mu reetaan. keroog tuus loo nga ko moom lu mu gëj a def. lu ma bëgg mu def ko da koy def te xoola wallahi al azim dañuy toog stade rek la ñuy gisee Jules Baldé du ma dem këram du ma woo téléphone du ma def dara Ada Fass boo waxee ñu ne ma dafa mën a mbot Jules Baldé da doon day mbot bay mbot air bi man bu ma ñibbisi woon Ada Fass mbot ma Jules Baldé xam naa ne daf may tër rendi ma. Jules sama waa ji ma koy nuyu mais léegi nag ren. Mm, wax nga ci sa bopp ak yu mel ne kii noonu yëpp leer na mais am lu ma seetlu xam naa fi la ñuy muy dafa mel ni lamb ji daa am ren Fass non Pikine ak Parcelles Eumeu Sène Modou Lô Gora Sock Tyson 2 Nguer yëpp yàlla na leen yàlla may ndam Pikine moom képp ku ñuy bëreel rek yàlla na leen ku dul man ak suñu waa écurie yàlla na leen yàlla may ndam waaw Modou Lô ak keloo ci wax ak Eumeu Sène yàlla na ko yàlla may ndam Eumeu Sène ndam lu sedd guyi waaw comme ni ma def booy bi mu def nu ko gën a mu def ko kan bu gën a gaaw. Hmm. waaw parce que man sam bos. man na koo def noonu. lu tax. moom laay laaj. c'est le des arènes. loolu kay bul ma ko laaj. loolu xam nga ko. Ah, nu ma ko xamee ond. ah dama seen jugee ci bombardier. waaw bombardier daan Modou Lo. dama seen daan bombardier. waaw te Modou Lo daanoon na Eumeu Sène de. kon mais Modou Lo Eumeu Sène bu daanee bombardier rek lamb ji ah. amatul koo xam ne nii tey bu ñëwoon président de la république ku ëpp doole moom moo koy nekk. xam nga ni siège bi kenn du ci toog ku dul bombardier. ah ah. <laughs> président de la république <laughs> président de la république bu ñu waxoon ni palais baay siège bi nii nii doole ji toog barki Serigne Saliou xam nga ni bàyyi kenn bomb rek su meeku njàpp kan moo ku daan ah, kooku Eumeu Sène mi ko daan nag du ci toog bu keroogee. waaw moo tax ma ne la nag ku daan kooku. waaw waaw mais kan lañ lay waxati ba xam mën nga koo daan wala mënoo koo daan. Ah. waaw sëñ Fallou. léegi looy tàggatoo ñi lay suivre ci Leewtoo TV. waa di li ma leen di tàggatoo mooy sama gars yi xam nga daa benn kii boo xam ne dama leen ko doon wax combat mi man leen bu diiree dina ma neex gars yi ni ma ond gul ñu yàpp def statut dafa xew. dafa xew ma booy bi laalal ñu ko lu mat statut. loolu moo deeti lan. waaw nee nañ ne combat bi mat esthétique trente secondes. waaw moo gaay bi ñu xëyee ñëpp pikin ñëpp moom lañ laal esthétique. loolu kenn musu koo def man kese ko mos a def onde le fou fils de dëgër musóor. kese kese waaw. dool ci làmb. Zil Balde fi mu toll nii loo lu dul Zil Balde sama yoon nekku ci yombul c'est pas évident que nga jëlee nit ay pikin pikin ba fii ak weeru koor gi nit ñi war a tëdd noppaleeku xam nga. indi leen ba fii quoi jàpp nañ ci waa xam sa cosaan aw ma seen fay comme ni mu koy waxee ki ci kaw président bi ba ci Alsane Balde parce que Alsane Balde yaakaar naa ne mooy caatu écurie bi kuy ñëw tamit moom moo lay dalal kon li ko dalee ci ñoom di leen wax acte bi ñu def ak bi ñu def kontaan naa ci. am na solo mais on ginnaaw raay waaw. am nañ ku ñuy jàppale nag muy Ecotra ay ci tabax bâtiment tabax gas ay forage defar ay tali courant boo demee jam ñaajo fii projet bi maanaam li président Macky Sall di liggéey. Ecotra lu ci ëpp moo koy liggéey ñu ay loolu ci wàllum liggéey ñoo ñuy sponsorisé ci koor gi gis nga pañe ba lee jox ma pañe boobu ñoom ñu pañe bi kay yaa ko kii laa Ecotra ko moom Ecotra day ay doom kon nag léegi dégg ngeen waxtaan wi neex na lool waaye nag olof daneen taala feccum liir bu neexee nday jaatee ca mbag ya ki ñu jàppale ci lii ñuy def mooy Ecotra ay ci tabax yi bâtiment ay immeuble ak ay forage xëccum courant lépp lu jëm ci wàllum liggéey daal ci loo xam ne nii luy tax nit ki ne ci jàmm la jàppal ne Ecotra moo ci seef ay doomi Sénégal la ko sañ ñoo ñëw nag ne Babacar ñooy ànd ak yow ci ndogu li di la jox ay pañe ana maane ana pañe Ecotra bi. waaw bi moom. waaw teel Ecotra ñan ñoo ko moom. Ecotra ay doomi Sénégal fii lañ dëkk ci réew mi. Ah, demal jam ñaajo lañ fay liggéey lu ci bëri. ci ay tabax ak yooyu ñoo koy defar. ñoo fa def ñoo def Diamniadio ba mu mel ni daal ñoo ñoo ko def ba mu mel ni. pa ñoom duñ ma may kër. ak ñoom Ecotra. kan moom moom kan mooy moom. neel doomi Sénégal yi rek. doomi Sénégal yi. waaw doomu doomu Sénégal bi amagul kër. waaw foo leen may may kër waa Ecotra. waaw kër goo xam ne nii pour kiiwu dofi la nag quoi dofi. xam nga ma fay dugal dofi di leen sang. yu góor yi ak yu jigéen yi. jëlal sa lii ñu jox. teraanga bi du ma ko nangu. sama yaay. ana sa yaay. waaw mi ngi ne. Ah, ana yaay. sama ngi ne Ndeye Marie nday mari fay biram penn dugu dugu waagaan waagaan ku ma sa sama yaay ci lay